loolu am na solo trop mbëkk mi waroon naa ci mën a wax rek du nekkul lu ma neex de lu lu ñëpp di naqarlu la très sérieusement mais am album dafa am direction quoi su ma nee def album mu tudd taaru Sénégal mooy ci mbëkk mi day day day day xaw a waroon naa def loolu mooy tax mais bu soobee yàlla loolu naa ci bàyyi bu baax baax a baax a baax a baax mais nag toujours daal nañ garder benn affaire moom ci man. man nekk mu artiste boo xam ne nii gars yi gars yi bu ñu xaar man ko dara xew pour ma way ci quoi man ci li may way mooy si li ma yàlla dikkee wala ci li ma marqué li ma gisal sama bopp ma am lu ci diggal ma way ko nekkuma kuy gis dara nii rek xam nga comme ñu ne lii xew na la siy way wala Sénégal dañ ne coupe du monde dama dama non non wala ma wayee noonu 얘기 계획 얘기 계획 나와요. 얘기 계획 매니 그래. mbëgg bi nag nekk na loo xamante ni ñu man wax dëgg yàlla phénomène la boo xamante ne neexuma neexuma mel Sénégal parce que dëgg la nag ñoom metti na mais jël gaal dugg si géej bi di dem loolu wax dëgg yàlla bugguma du ma digal benn nit mais ci sama yoon mën naa soxlaa mais décidé waaye nga xamante ne moom la ma yàlla war a séddale léegi quoi pour bind si nii damay toog yàlla moom mooy inspirateur bi fii kenn moomul inspiration yàlla moom moom mooy inspiré jaam bi ci li ma inspiré rek si laa yor sa décision loolu moo tax peut être mbëgg beeg peut être yeneen aspect yàlla ko